enregistrement audio yi ñuy faral di nemmeeku ci réseaux sociaux yi muy jur ay coow ak i ñombe yu bari ba tax suñu sit bi di 24 actu génn samp ab laaj jëme ko ci askan bi ngir xam nañ lañ gisee moom le mbir. loolu moom bokkul ci sutura quoi ndax yàlla suñu borom dafa bëgg sutura loolu moo waral mu bind guddi ak bëccëg kon kon bëgg na sutura ki nga xam waxtaan ak moom li ngeen waxtaan seen diggante rek la yéen ñaar rek. kon jarul nga boo ko xasee partagé rek amatoo sutura te audio boobu noonu nga partagé xëy na yéen ñaar yéen amoon loo leen di waxtaan nga nga ko mën na jur leneen ak leneen mën na yàq diggante mën na tas sëy mën na yàq mbokk mën na yàq lu bëri daal loolu daal rafetlu ma ko daal képp ku koy def tamit nga bàyyi ko. loolu moom rafetul moom loolu moom ni ma ci mën a wax moom maanaam doomu aadama li ngeen waxante ak yow moom ba pare. loolu foofu moom foofu la mën a jeex maanaam saa boo waxee ak nit ba pare su ngeen waxee su ngeen waxtaanee li ngeen waxtaanee ba pare yéen neen la yaa ngi téléphone moo leen boole woon moo leen di tàqalewaat amaatul amul droit di ko jàllalewaat ci keneen loolu moom koy dund ko nekk moom it na nga xam ne rafetul daal. nit ki euh, envoyé la vocal nga transféré ko dugal ko ci groupe soit que kooku yaa ngi wuññi ayibu jàmm te parce que da ngay imaginer tey bu la ko defoon du la neex nit ki woo tamit nga enregistré appel am après. dem yóbbu ko feneen mu leer la lii c'est des délits man na ko indi beneen problème mën na ko indi sax tëju të të tëdd koso wala leneen leneen ak lu ci mën a xew daal bari na loolu ku koy def nga bàyyi ko parce que da ngay imaginer tey buñ la buñ la buñ la daggoon tey deret génn buñ ko daggoon sa yaram du la neex kon da nga imaginer ni muy méttee sa yaram noonu lay méttee ci yaramu keneen. li koy def moom dañoo def lu la neex rek mais ni ki moom li muy wax ak yow si vie privée. waroo jël di ko transféré feneen parce que loolu moom jekkul jaadowul ndax am na loo xamante ni euh, yéen a ciy waxtaan di mu la mu la ngeen ciy waxtaan chaque jour waroo mën a jël di ko envoyé keneen am na ñoo xam ne dañ ci chantage ni ñi di ci xaalis ndax dangay ngay wax ak nit loo xamante ni ëllëg mu jël ko di la chantage di jël say vocal di ko transféré feneen naan la ay boo mu dugalul xaalis danaa ko dugal nii wala ne loolu moom rafetul jekkul jaadowul te léegi moom daf moo bëri ci téléphone yi moo tax en général nit ñi booy wax ak ñoom ci vocal moom c'est bon nga xam ne wax loo xam rek. nit ku loo bëggul ko la ko def bu ko def keneen parce que àdduna lépp sutura la waaw sutura dante parce que kenn ku ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi nekk ne nekk fii mais am nga am na loo xamante ne buñ la ko xamaloon tey du la neex wala buñ la ko waxaloon tey du la neex kon nañuy sutura dante tey euh, tey tey tey tey tey tey yéenante jàmm waaw muy si góor ñi muy si jigéen ñi si parti yëpp nag. vraiment daluma. dalul sama xarit mais damay gis nag ma koy gis ma gis ay yoo xamante ne leer lii nii ki ko wax bëgguloon bëgguloon mu gis naa benn vidéo Mariana boo ndaw moo doon am ko muy appel vidéo yooyu noonu xam nga après da ko caméra partagé ko keneen ak ko ba mu koñ ba ñëpp gis ko benn vidéo clip boo ne da doon faram la rek yaa ngi mu jël ko partagé xam nga rafetul am na sama benn xarit buñ ko mos a def moom boo xamante ni téléphone dafa tegoon téléphone bi nii di vocal fàtte ne téléphone baa ngi vocal ndekk ñu ngi wax léegi ki ñuy wax ak mi ngi koy dégg te ñu ngi koy ñu ngi wax seen i débat yoo xam ne yaa yaa gën a xam jàpp maam daal dañ doon jëw ba jàppalu seen bopp daal ci gàttal. bu dee wàllum xaalis mas na maa dal parce que bu fekkee damay woote téléphone waxtaan ak yow ci téléphone ba pare léegi nga ne ma tey jii àll un million un boobu noonu. maa ngi yow ci suñ kàddu la ñun ñaar su biir téléphone bi su ëllëgee loolu noonu amatul wax amatul miim mais bu fekkente ni cadre liggéey la mën naa ko rafetlu mais bu fekkee du kaadaru liggéey parce que am na ñoo xam seen xel day fàtte mais yaa waxoon ni damay déglu sama voix mu continuer mais bu fekkente ni nag ay ay ñaaw-ñaaw nga ci jublu kooku rafetul. naam ne bari na lu muy defar waaye li muy yàq moo ëpp ba tax ñuy ñaax askan bi ñu gën bàyyi xel. audio yi ñuy yónnee. ñu gën a maanaam moytu nit ñi parce que da ngay dëkk ak nit sax soit euh, du la yéene jàmm parce que di teg ay plan yoo xamante ne ak ay pexe yoo xamante ne luñ la dugale la wala luñ la naxase la. du dëgg parce que jamono bi moo nekk jamono boo xam ne dafa doy waar ki la gën a jege wala ki nga yaakaar ne bëgg na la kooku moo sa noonu tey waaw di moytu daal waaw ku la woo nga wax la nga xam ku ah, booy envoyé vocal wax la nga xam jàpp sa ñam. ñu leen di wax ne maanaam ñu ànd ak seen xel quoi. nit ki lépp looy wax maanaam nga ànd ak sa xel ànd ak sa conscience tranquille xam ne lépp loo xam te ni maanaam bëggoo dee fekk la ca rek jaru nga koy def tey buñ ne la woon lii nii maanaam tey bëgg nga ndax dee fekk la ca nga ne déedéet kon jaru nga koy def noonu la dem tamit ci ay wax wax ju ñaaw tamit amul amul sens quoi mën nga am sa far wala nga am sa gel di waxtaan ak moom sérieusement pas ngay wax ay wax yu bon wala wax yu ñaaw loolu rafetu tamit waaw ñu koy wax tamit nañ ko bàyyi wax ju bon ji. ki góor ñi ñu def attention parce que am na si jigéen ñoo xam ne nii mooy loolu dañu lay dugal sama mbokk góor ñi daal li ma leen di digal mooy ñu def tere très attention parce que WhatsApp téléphone dafa sensible ndax téléphone moom mën na laa defaral mais mën na laa yàqal ni mu lay defaralee noonu la lay yàqalee mais nag ñu di ko sóoraale bu baax rek xale jigéen yi tamit ñu waaj ñi loolu parce que loolu amul benn intérêt. parce que nit ki wax ak yow si vie privée am pare ngay jël affaire yi di ko tasaare naan ko ay boo ma dugalul nangam parce que loolu rafetul ndax kenn ku ne bu ñu ko doon def sa càmmeñ wala ñu koy def sa mag du neex ndax nit ki moom loolu def sa mag wala sa càmmeñ bul nangu ko la ko def xale jigéen daal nañ nañ ko wàññi daal loolu daal noonu laa ciy wax moom. kenn ku ne yow yaay doxee sa ngor-ngor sa sa gëm-gëm ak sa ngor ak sam xel ak sam parce que te xam ne lii fii sa tànk waroo ko fee teg fii sa tànk war nga teg loolu moo ci nekk. mais leneen amaatu ci ñun ñëpp muy góor gi muy jigéen gi bu fekkente ni da nga ciy dund pour lu ñaaw nii da ngay sóoraale loolu parce que àdduna ke pour nga yàq carrière nit yomb na quoi pour nga yàq carrière nit yomb na mais nag chaque jour da ngay ànd ci ak xel ak conscience xalaat li la war a dal sa diggante ak kii